ñu nekk dafa daal di jéggi dayoo yéenekaay gi nee na nag li nga xam ne moo waral ndóol gi bokk na si nag ñàkkuk liggéey gi nga xam ne moo am ci réew mi ka dund gu nga xam ne maara day nga xam ne moom lañ yor alalu réew mi ka ne maanaam am na ci yéenekaay gi nee na en tout bi nga xam ne ANSD wane na ko mbir mi doy na waar yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi nag ñooñee ñoo gën a loro yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu collectif ñoo lànk ñoom nag tey ji a amal nag ab doxam ñaxtu waaye nag Sagna nee nañu ñoom seen yoon nekku sa ñoo ngi woo askanu Sénégal ngir nag ñu daal di génn ci mbedd mi ngir nag naqalu dund gu gi nga xam ne moo am ci réew mi li am ci yéen na waar génn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waay nat daana koy passé mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw gi ñàkkug ndox gi nga xam ne moom la ñu nekkee loolee jégg na dayo maanaam dañuy mar ba mara détaillé yéen kaay gi nee na facture yi nga xam ne tamit moom lañ leen di andi la facture yu cher a cher a pare nag bu facture yu ñëwee cher ba jéggi dayo loolee nag la monde rural bi di dund yéen kaay gi na ñoom nee nañu nag ay arnak ci boppam arnaque moo am ci compteur yi nga xam ne moom lañ leen defal moo tax na njiitul Forum Civil ma ngi sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall mu daal di arbitré mbir mi ngir nag ñu daal di mën a andi ak jubbante yéen kaay gi de la mu ñu xamal laan ñu ñi ne ñoo bokk e am yi nga ne moom la ñu wékkoon ci kaw Guinée ba léegi maanaam ñoo ngi ko maintenir ba pare nag sàkku ci nag ki nga xam ne mooy colonel Doumbouya ak ñi mu àndal ñu organiser fii ak juróom benn weer yéen kaay gi di réew mi ko di xëy ñu mouvement yaana mar démb doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi ngir nag tubayulu kilifa ak Simon ñi nga xam ne ñoo ngi ci kasu bi caat ak Aliou Sané ñi nga xam ne ñoom la ñu ñoom nee nañu nag état bu Sénégal dafa bëgg a jëfandikoo li nga xam ne mooy justice bi ngir nag andi leen ay jafe-jafe ba tey ci biir journal bi ñoom caat nee nañu lii lépp na complot la te état bu Sénégal dafa bëgg camoufler maanaam député yi nga xam ne tudd nañu leen ci ay njuuñ njaaca jëm ci yi nga xam ne moo fi xewoon ci mois de mars ba léegi ni Macky Sall mënu koo jàppale waa Y'en a marre nee na nag moom xeex bi daal Y'en a marre ñoom duñ si wéet ñoo koy ànd daal di koy xeex nee na nag avant événement mars yi procureur Serigne Bassirou Gueye dafa wax kilifa kilifa ba Y'en a marre na ko Sonko mii nga xam ne moom ngeen di jàppale bay boo nag ngeen teg ko ci suufa bu ngeen ko tegal ci suufa maanaam di ngeen ci am ay problème te nag Sonko moom ci kasu bi lay teye ba pare nag moom procureur daal di wax kilifa na ko Ousmane Sonko sax am na boo xam ay bagaasam ba dem Ousmane Sonko ne maanaam nag du taxawaayu procureur te musiba ma bu kumba sëriñ Bassirou Gueye la ak doyen des juges ak conseil constitutionnel yéen a kaay gi di libération nee na Simon bu yaana mara am na vidéo boo xam ne Thierno Diallo vidéo na ko ko muy vidéo boo xam ne bu doy waar a doy waar la maanaam Simon nag luwee na juróom benn yoon li nga xam ne mooy passeport français boobu yéen a kaay gi di wal fajiri nee na opposition bi ñoom nag def nañu bloc ngir nag jàppale waa yaana mara a kaay gi nee na yaana dañoo bëgg nag dekkalaat xeex bi lii quotidien nee na yaana mara Assane Sambo nee na Sénégal léegi kenn nekkatul sécurité yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa baax Barthélémy Dias ci conférence de presse bu Y'en a marre bi nee nag ñi ñoo bëgg a jëfandikoo nga xam ne mooy justice bi ngir nag toroxal ki nga xam ne mooy kilifa ak Simon moo tax ñu jël mbir mi di ko yóbbu instruction te loolee du dëgg du yoon Guy Marius Sagna nee na nag vidéo yi nga xam ne ñooy circulé loolee enquêteurs yi si boppam ñoo ko wasaare ci internet bi ndax nag vidéo yooyee ba ñu koy nag tasaare jamono joojee Thierno Diallo mi nga xam ne moo ko filmé ma nga ca kasu ba a tëdd sa naaj wa complot bii nga xam ne moom lañ bëgg a def waa maar yéen a kaay gi de la na en tout cas li mooy assemblée nationale bi scandale yi bëri na fa lool yéen a xëy ci Boubacar Biaye député bi nga xam ne moom joxar bi dañ ko baaraamu tuuma ci lu jëm ci trafic passeport diplomatique Amath Suzanne Camara def na nag ay témoignage ci moom ndax Amath Suzanne Camara nee na moom ak Boubacar Biaye ñoo nekkoon ci réseau amoon ci réseau des enseignants ba tey ci journal bi daan nay wax ne Boubacar Biaye da doon jàngale ca diwaanu Thiès moto sax la yoroon nag fukki fan ak juróom yu nekk a kaay am na nag ñenn ñoo xam ne Sédhiou la ñu dëkk ñoom nag nee na ñu Boubacar Biaye daal village bi mu dëkk dimbaliwu fa kenn kenn kenn dimbaliwu fa kenn am na nag ñenn ñoo xam ne sax nee nañu Boubacar Biaye maanaam nit la koo xam ne dafa bëgg xaalis lool lool lool maanaam du maye daal businessman la yéen a kaay gi di sunu làmb xëy nag di ñu xibaar naan ñu Modou Lo